télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ning ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wér gu yaram ngir a sama laanu mi dundee. fii ci Ladoum TV. Ladoum TV jox la kàddu. nga mën a wax sa jaar jaar. danga ko seetaan bu dara raw. Mm. visibilité dinga am promotion dinga am. nanga wane sa bopp ci émission jaar jaar am ndam. Ladoum TV télé askan bi. mooy wane fi nga mëne ndax ñëpp xam Ladoum TV ñu mbokku téléspectateur Ladoum TV ñi ngi ci box numéro 68 fii ci Mbour mu nekk dixième édition Ladoumette de Mbour version 2024 ñu ñëw ci box Baye Talla tubaar fa Talla def sélection bu mucc ayib ñëw taaral bés bi bés bi nga xamante ni si da cee bokk am ci wàll macha allah boo xoolee tey mu def sélection sélection bu mucc ayib indi fi ay xaru xale ay xar yu rafet ay xar yu am niveau ay xar yu pare macha allah taal gannaaw boo nuyoog téléspectateur Ladoum TV nga présenté yu kii nga tey. waaw asalaamaaleykum ginnaaw maa nuyu waa Ladoum TV di leen kontaan si dalal gi ngeen ma dalal di leen ñaar jàmm ah, di wax ni macha allah maa giseen liggéey si net bi macha allah. ak di ñaan yàlla yàlla yàlla def ba ngeen am seen ay télé bopp wax dëgg yàlla parce que gis ngeen ni booy amee seen ay télé sooy amee télé rek wax dëgg yàlla dina gën a jëm kanam waaw wax dëgg yàlla macha allah waaw ginnaaw bi ñu leen nuyoo pare waaw xat bi ma téye nii mooy New York New York euh, nekk si à toll si âge de 11 nekk Boy Ndour yaayam nekk doomu jëf jëf doomu nekk doomu ndigal mais yaayu fëyel bi jur yaayu doomu jëf bi kooku kiraa lañ koy wax kiraa doomu euh, Boy Bambara la ah mbokk téléspectateur Ladoum TV New York mi ngi nii New York City macha allah boo xoolee ci ossature ci doyo kii da nga ko recruter wala da nga ko juddule. kii moom mën naa ko juddule parce que waaw mën naa ko que. nga juddule ko téye ko lu waral loolu taala waaw ah, ma juddule ko téye ko parce que dama am lu ma gis si moom naan daan joxe ko juddule daan joxe ko kii ma juddule ko gis ne mën na liggéey ak samay femelle famille yi ma jot a yor mën na liggéey ak ñoom bokkul ak ñoom si côté yaay bokkul ak ñoom ñoo bokkul ak ñoom moo tax ma préféré téye ko. ah macha allah New York toll ci 11 mois. juddule ko ñu mayoon ko ci tëb mu juddule ko téye ko kon am na lu waral loolu tey kii fan nga yaakaar ne war na fu mën a yóbbu sa élevage ci ban niveau. ah man ndax dëgg yàlla gëm naa ni moom niveau bi mën a yóbbu sama élevage mën naa ni bëri na parce que bu dee liggéey kase kase kase wax dëgg te joxe naa magam bu góor mu bokk gis na position bi muy def loolu nag dafa daal sama xel mais bu dul loolu de moom de am na mu ko aaloon mu nekk xel na mu ko aaloon kooku tamit taalu na si dëgg yàlla mais li mu taalu wax dëgg yàlla macha allah dal na xel waaw mhm. ah loolu taw féex la mag ñi nee nañu éleveurs yi nee nañu maal bu la ndey ja neexee jëlal nga liggéey ko parce que taala li mu def ndey ja moo ko neex moo tax mu téye doom ji fa yéene cee liggéey taala nga ñu keneen ko waaw nga présenté ñu kii. waaw kii mooy Zeynab. waaw toll si 13 mois. nekk euh, doom si Diané. moog général bi mu leen wan léegi magam bu góor général magam bu bokk yaay moo jur kii. waaw kii côté yaayam tamit nekkaat waa kër euh, mën naa ni euh, màggal bu Ousmane li laal na màggal laal na salaam waaw côté yaayam waaw parce que tamit benn famille moom pas Sall joxoon Sall bu yoof dëgg yàlla bu ma joxee femelle bi femelle mën naa ne mooy caatam sax si kër ga parce que femelle boobu mën ah, la ma ko mu waar doy kii doomu soldaar la mu ñu koy wax jaane jaane doomu soldaar la soldaar Sidi Anta Sidi Anta sénateur sénateur Joni Joni aha Joni Joni ko ne xam koo xam moom xam ni champion bi nekkoon si Umar Cissé la wax dëgg yàlla waaw mi ngi noonu macha allah mbokk téléspectateur Ladoum TV boo xoolee tey kii capital génétique am kii li ko tëgg lu wóor la élevage yu démb la élevage yu tey résultat baa ngi nii macha allah waaye taala gisaat naa fi yeneen ñaari femelle nga présenté ñu femelle yooyu taala waaw kii mooy yeta nekk doomu ceddo ceddo moom ku ne ko wax kenn kenn ndax ceddo doomu kii la ah, gaynde gaynde Saloum Saloum waaw moom ngi si 14 mois di dugg si 15 mois am nii moom nag échange espoir la dëgg yàlla ah mbokk téléspectateur Ladoum TV kii bokk ak ki nga xamante ni si mooy maal boobu ñuy wax naataange borom borom borom dollar yi ak maal boobu ñuy wax capitaine macha allah di di di di jaale ak lu yëpp borom capitaine di musa Diouf kaas ba ndeysaan nekkoon suñu xarit nekkoon suñu am di jàmm man ñu bokk koñ. ñuy demalante di dëkkalante macha allah di ko jaale ak lu élevage yëpp di ko jaale njabootam gépp macha allah capitaine nekk doomu baay ci kii ñu téye tey kii si ñaata maal nga ko teg. waaw kii day doog a taawlu. ndax benn doomu Sida laa ko teg muy soldat mu jur kii. waaw moo jur añeel bii nii. añel bii mu ngi si le 11 bi la war am 3 dëgg yàlla mu nekk añel bu bu dal xel wax dëgg yàlla macha allah. waaw ma baaxal ko sama benn grand Matar Fall ko jox waaw tamit di jaale waaye tamit waaw ñun ñëpp di ko jaale waaye suñu suñu frère boobu Moussa di ko ñaan yàlla jéggal ko yërëm ko yàlla am na ci yaakaar parce que démb wax dëgg yàlla dégg naa Pape Mansour Mbodj wax ci wax dëgg yàlla wax ci wax yu rafet nga dégg mu na wala dara nga mu toog di ko ñaanal toll ak 4 minutes di wax ci Moussa wax dëgg yàlla kon xel lay rafet waaw di ñaan euh, njabootam yàlla may na xolu muñ dégg yàlla parce que dégg nga si moom ay mbaax daal waaw ñu joxoon côté liggéey moo côté côté business am ak côté xar yi dégg dëgg yàlla dégg ku nekk di seede seede rafet macha allah. loolu taw féex la mbokk téléspectateurs yi ba tey dañuy ñëwaat ci biir sélection bi taala nga indil ñu ki ki nga xamante ni si mooy doomu sëtu sëtu sëtu naataangee ngi nii sëtu capitaine a ngi nii sëtu ceddoo ngi nii sëtu gaynde ngi nii sëtu ki nga xamante ni si mooy saalum saalum mi ngi n waaw kii mooy Amina Amina nekk euh, doomu kii mi euh, nu mu tudd waa mi waaw papam nekk sida soldaar soldaar doomu sidante la waaw soldaar man mooy sama maal bi ma yor di ko liggéeyee mën naa ni soldaar yéen a ngi njëkk a yéen a feeñal dëgg yàlla waaw soldaar mën naa yéen a njëkk a ba ne dégg nañ ko fa dëgg yàlla macha allah daal ah, ah. ah loolu taw féex la mbokk laa Ladoum TV kon kii dañ la ciy ñaanal taw fan wu gudd ak wér ndax kii bu ko amee fan wu gudd ak wér élevage dinañ ko dégg ndax am na njëriñ ci élevage ndax kii fu mu bokk capital génétique bi ko tënk lépp mu dëxëñ ko si yaramam oh nañ ko ñaanal fan wu gudd ak wér. waaw ba tey gisaat nañu beneen femelle encore taala kii waaw kii kii mooy euh, mën naa tabara parce que moom doomu Omoro la waaw moom doomu Omoro la papam yaayam la nekkat doomu Omoro waa moom tey mën naa fixé fixé Omoro la waaw ndax moom mu judd waaw mi ngi si deux portes nii. dëgg yàlla nekk nañ xar bu am yaakaar xar bu am bind dëgg yàlla tey bu ñu ko doon nat tey ji bu ñu ko doon xool tey si xar mën nañ mën nañ ne xar bi xaru jurkat la parce que dafa yor na bind bi te dakay wane te dëgg yàlla ñaari doom ñu jot a jur rek wax dëgg yàlla macha allah taawam seex la bi si toppat ni ay seex la waaw dëgg yàlla macha allah mi ngi noonu tey saa bi biñu ko équaté sax dañ ay seex la ëmb waaw moo wane xar bi moom wax dëgg yàlla yàlla def na si barke quoi aa xar bu xar bu naatal xar bu naatal bergerie la waaw parce que trois portes ku ko def ñu nga wàccee tawlo seex tegaat si ay seex ñu école waat la nga ëmbat ñu école waat la nga def ëmbat ay seex loolu nag sant yàlla daal waaw. kii dafay géeral bergerie dafay géeral gétt macha allah taala nga fàttali ñu bergerie fan la nekk ak seen numéro téléphone. waaw ah, bergerie mooy bergerie 3M capital mi ngi nekk euh, mën naa de Saly bi mi ngi ku ñuy woo si na nga ñuy woo 77 597 66 61 waaw ku ñu si woo daañu jot incha allah rabbi te boo ñëwee tamit daay fekk ay xarit rafet wax dëgg yàlla waaw te xarit moom la laatum partage ok merci. mooy